Jona Thiatou Kairé Thiatou Kairé la ñu lool Jona moo ñëwoon ginnaaw eh, Jona moo jóge fële ca Thiaroye Thiatou Kairé moo jóge Soumbédioune Thiatou Kairé Jona eh, Jona wàcc ba ci suuf Jona Thiatou Kairé andi na ko ci digg làng gi Jona Thiatou Kairé Jona Thiatou Kairé Jona Thiatou Kairé Jona eh jël na tànk ba eh Thiatou Kairé est-ce que daanuwul Thiatou Kairé est-ce jox nañu avec jox nañ comme victoire ba Jona Thiatou Kairé door na ba rëpp Thiatou Kairé door na ba